sànq ku ne xam ne ITV bi dafa xaw a xat li la ñu bëggoon mooy nga toog ñu waxtaan présence su Boy Niang tey ci bés bu toll moo tax man la mi daal séeréer fu pire man doomu séeréer laa sama papa séeréer la yaa ngi dégg tey nag ma daal ba xam nga ñu mbër yëpp am relation bu naaj ak moom mu am bis ñu tuddee ko ko ñu ñëw pour bëggal amateur sama mbokk séeréer yi ñëw seetaan lamb waaw. tey Boy Niang ci lamb ji bu ñëwoon salaamaaleykum. Balla Gaye tëll ci làmb ci tey nan lay demee. waaw mais làmb ja rek xam nga. damay waaw mais amul ragal am <laughs> bu ñëwoon moo xanaa day xanaa comme suufa ngi fi arbitre ngi fi xanaa dañu koy may ñu laale ko benn yoon. waa mu jeex waa comme coono bari na. dégg nga sorteem. wax na aborder ay sujets yu bari du ma ci dellusiwaat. dafa da nga jàpp ni Balla dafa bëgg a teggi non du ay teggi sax moom la am na droit wax ku ko neex mu bëre quoi loolu moom xam nga garaawul le fait que mu bëreeg Boy Niang mu ñaaka bëreeg Boy Niang man xale laa maa ci làmb damay continuer suma yoon su ma bëree woon ak moom damay continuer sama yoon su ma woon ak moom damay continuer sama yoon. mais moom nee na bañul bëreeg yow ndax bàyyiwu fi kenn. waaw noonu la demee man tamit làmb laa bëgg naa bëreeg moom champion la bëgg naa bëreeg yeneen champion amul a bëree duñu bëree boo xam ne Balla du ko dégg ci Boy Niang le fait di ko xalamal di ko wax lii moo ko neex li mooy mu il est le plus mooy champion bi yooyu non non fu du ko fi dégg ñun ay xale lañu dañoo am gëm-gëm ci li ñuy loolu moom bu yow na ko xam boo ngeen loolu la bu yow mu wut yenn adversaire yu mu kaasu fonde yi ngay seet waaw kaasu fonde bi naa du ma ko naan dama ko la wax loolu boo ñaa cukku li ngay waxal Balla Gaye de l'ex roi des ngay waxal ca bu jeexee rek na cappaacool bi ngay waxal nii bu jeexee rek jeex na man it kaatu fonde bi naan bi sax léegi amatul dama koy diw. mais booy ña. amul nit balaa koy diw balaa koy diw fonde foog nga tëdd ci koom wala nga koom diw ko ko loolu la sax léegi. Balla Gaye qualité yi wax ci mbër yëpp a ngi ci. waaw yéen a ko gis mais gisuma qualité gaaw na mën na xeex benn combat am du mais loolu yow rek ko gis ak ñeneen ñu ko gis mais boo ñaa gisul loolu boo ñaa gëm na ne xale la day entraîné gëm na boppam Balla lu mu wax suñu ay mag wala suñu ay papa ñun waxagul ko kaar bi bu fekkee wax bi moo koy meroon nañ ko wax. lan la wax sa papa parce que ay papa wax ma sama ay papa non wax ma sama papa dama ne lu mu wax suñu ay mag depuis 2013 ngeen ne fi ci làmb di ko gis mu wax ko suñu ay mag wax ko ay taay ay baabooy ci foo ci ree mais ci làmb quoi ñun waxagu ko waxaguñ ko kaar bi donc làmb la bu ñu waree waxante dañuy wax su waxee jox ma damay wax delloo ko loolu rek amul benn problème. dañoo jàpp ni waa Géej waaye fayaguñu bor ba tey mais sa combat ak la guerre ñoom dañu jàpp ni que dafa feeñal ay fayu booy ñoom. waaw incha allah léegi fayu yooyu dañ ko exploité amul ak ku ko neex rek ñoom waa Guédiawaye dañ koy exploité lamb la daal lamb la ñu ngi ci lamb ay xale lañu ñu ngi bë ñu ngi góorgóorlu bu ñu bëree moom dañuy bëree bu ñu bëree ak ñoom dañuy continuer def suñu yoon mais le fait que mu toog le fait que mu toog wax jëmale ci Boy Niang man damay wax delloo ko loolu bu jaaxle. avec la manière rakam daan ko avec la manière moom la de mais l'essentiel moom la de l'essentiel ñu bañ a guddal comprendre nga ay xale lañu ñu ngi ci lamb. moom am na droit bëree ku ko neex parce que champion la amul benn problème ñun bu bëree ñun dañuy bëre bu bëree ñun dañuy bëre lamb la ay xale la ñu ngi ci du góorgóorlu lool la loolu loolu laa am ci lu ma ci wax bëriwul maa ngi bëggee ñëpp nuyu gis naa gars yoo xam ñu ma doon woo ko ay wasaare xam nga waaw bu Dakar Actu sama ay frère ñoo ko moom ñoom daal yi maa ngi leen bu ba di bëggee ñëpp waa di wax ni bu jeexee rek jeex na waaw incha allah jaajëf